sa muy loxo

so na ngeen def excellent te ngeen ñëw seetaan ngeen like ngeen subscribe ngeen comment below wax ma nu ngeen xalaat si li may wax si tey so I hope ne na ngi am good evening and si uh, ngoon lañ nekk fii si Angleterre so juróom benni waxtu genn wàll si lañ ne bot xaw ma yéen fu ngeen nekk ñaata waxtu moo jot bot si ngoon lañ ne moo tax ma ne good evening so tey dama ñëw ñu wax ñi tokka lu am solo si man parce que si loolu laa nekk right now at the moment te ñu ñu si bëri ñu ngi si bëgg a nekk mbala ñu si nekkoon génn si mbala xëy na bëgguñ see nekk waaye xamuñ lu tax ñu war see dugg loolu lay wax si tey so tey li ma bëgg a wax mooy mbiri wàññi yaram mhm. wàññi yaram loolu lay wax ci tey so ñun nit ñuul nag saka ñun Gambia ak Sénégal xamuñ mbiri wàññi yaram mhm. ñu ñu si bëri parce que ñun jigéen ñi sooy wàññi yaram dañ lay xas mbala ñu lay ree mbala ñu lay tuuti suñ la gisee nga xam yaram mel ni man war a génn ci yoon wi di daw sol yére yi daw tem ñu lay xool like kii moo xamul boppam wala kii mag ni moom walla kii nangam fu bëgg a def boppam comme gune wala hii nangam soo ñun dañuy ruus pour def ko ngir waxi nit ñi so loolu laa bëgg wax tey waxoon naa ko last week tamit waaye dama ko bëgg a wax tey parce que dafa important pour ñu wax lii ok te su fekkee waxoon naa ko si tamit nu ma koy waxee tey dafay nekk nooda dama ko waxee beneen fànn so damay wax li tey because yeneen jigéen ñoo ne ñu may seetaan te ñu ngi bëgg a wàññi seen yaram bi ñu mun a commencé àndandoor ak man moo gën nga toog di ma seetaan ba pare suñu yàlla mayee fanu gudd ak wér yaram su ma ko defee lu mat benn xat wala juróom benn weer nga gis suma yaram wàññeeku nga naan su ma yëgoon tàmbaleeg ami fekk raw na la so ku bëgg a tàmbali léegi nga ñëw ñu bokk nga ñëw bokk so nu ma dee def mooy dama dee meg soo ne semaine bi danaa si daw ñett ñetti yoon wala ñeneenti yoon wala juróomi yoon waaye lu ma bugg man mooy ma daw juróomi yoon ci semaine bi waaye su mënta possible dinaa daw lu mat ñetti yoon wala ñeenti yoon su fekkee ne semaine boo xam ne dama busy ak liggéeyoo something waaye may commencé daw yi last week semaine bi passé nii daw naa juróomi yoon bi passé nii laa tàmbali samedi bi bi mu del see nii daw naa juróomi yoon keroog samedi mooy yoon bi soo démb ma noppaliku tey dem naa soo li ma dee daw mooy du ma dee daw bu baax dama dee daw ndànk-ndànk ni rek li ma dee daw mooy dalee ko si ñaar fukki minute ba ñaar fukki minute ak juróom ba fanweeri minute des na si lu ma mën a daw rek so su ma dawee loolu pare dama dee taxaw ma def skipping ma jël buum gi ma tëb nii ma def loolu noonu tam ba ma sonn ma noppalik tuuti ma defaat ba ma sonn dama koy def ñetti yoon so si kër gi fii tam maa ngi fi am ay bagages yoo xam ko dee use you pour uh, you know ak you dama dee jéem a def push up nii and stuff but dinaa def another video boobu noonu soon hopefully but at dama bëgg a focus si daw yi focus si suma yaram yi miin daw bi moo tax ma commencé daw ba tey defuma video yooyu noonu xam ma defuma exercise boobu noonu ba tey tey moom def naa tuuti bu ma jógee daw boot ma commencé ba tey defuma ko benn yoon rek laa defoon benn oññaar te loolu noonu stretch suma yaram laa doon stretch nii stretch mooy xaw ma la ko xalaw di waxee boot tubaab bi dañ ko dee waxee something dañ ko dee use for am na yeneen stretch move yoo de ne dafa baax si so loolu noonu laa def bo defuma ekati weñ or anything lu métti ma commencé daw ba tey mooy last week bi bëgguma sama yaram bi di daw mu ngi métti ba pare ma ñëw di ekkati weñ yekka def yëf di si yokk waaye damay xaar ba su weer bi deexee incha allah fekk sama yaram xal ko tuuti ma continuer di si boole yeneen yi bon ray naa dama si bëgg a boole rek bëgguma see boole gum weñ so suñu yaram wi lu tax ñu war ko wàññi du ne bañ koy wàññi parce que suñ yaram wi dafa dafa rëy dafa ñaaw wala kontaanu si xam yaram déedéet du loolu de yaram bi soo ko waree wàññi dafa baax si wér gu yaram ba pare ngay dox di dem you know dox ñëw lu sori tam dafa baax su fekkee ne mënoo xa daw nga dox soo doxee ay lu mat waxtu wala nga dox lu mat genn waali waxtu nga dox dëppaat loolu waxtu la nga waaxu loolu dafa baax si yaram baax si wér gu yaram waaw te soo ko def si yàggee sa yaram dana wàññeeku su yàggee sa yaram sa tànk yi dina mun dox bi ak sa yaram ba nga xam ne soo dawee sax du la you doo sonn. soo lu tax ñu war a wàññi suñ yaram wi like I said nekku ne dañ koy wàññi because suñu yaram wi day foog ne rafetul su rëyee déedéet am na sax jigéen ñoo xam ne ñu ngi am jëkkër te seen jëkkër dañ dee bëgg jigéen bu rëy soo dañ ko dee wax sax jabar bi ne la bëgguma nga wàññi sa yaram wi wala jigéen bi jos bëgg yaram wi nu mu rëyee noonu waaye nag lu tax nga war ko wàññi mooy rëyaay bi su ëppee baaxul si yaram baaxul si wér-gu yaram dafay joxe ay feebar yu bëri ba pare dafay tax daal nga tayal doo mën a def yenn yi waaye su fekkee yaa ngi dawantu ndànk-ndànk wala nga waaxu waaxu yu bëri wala nga ne si kër gi di jéem a exercise su yàggee sa yaram dafay miin sawar gi su yàggee da ngay gën a sawar a pare da ngay gën a xam wér gu yaram so loolu moo tax ñu war koo def am na yeneen lekk yoo xam dañ ko war a wàññi lekk yu bon yi waaye vidéo bi tey du vidéo lekk loolu dinaa ko def you know sometime soon bii nii pour wax rek lu tax ñu war a wàññi suñu yaram yi pour loolu la and then next time ma mun a def vidéo lekk. soo am na yenn lekk yoo tam dañ ko war a wàññi ba tey dinañ ko lekk waaye duñ ko lekk lu bari duñ ko lekk saa yu ne parce que lekk yooyu baaxul dañuy joxe feebar you know di joxe ay tayal di joxe ay yaram di joxe ay feebar am na yenn lekk yooyu lekk daf lay tayalloo am na yenn lekk yooyu lekk daf lay sawarloo so lekk àdduna bi yëpp benn bu nekk dafa am lu muy def si yaram so dañuy wàññi yeneen lekk yi ñuy lekk rek yi nga xam ne baaxul si ñun ba pare suñ koy lekk tam buñ koo lekk saa yu ne ba pare ñuy lekk-lekk yu baax si ñun yi and ñu xam ne dañ war a naan ndox ñu wàññi ñu xam ne dañ war a naan yeneen healthy tea but like I said loolu dinaa ko defal vidéo du tey tey moom damay wax lu tax suñ yaram yi war koo wàññi dafa baax lu tax ñu war koo def te jarul rus ñun nekk ñu luñ bugg a def lu ne hmm? suñ xamee nit ñi dañuy ree wala ñu suñ bopp ñu fiil ne li lii dafa ruslu si man duñ ko def xaduna nag life sa baar nga puus sa bopp nga puus sa bopp beyond your limit xam nuñ ko waxee si xolof ah, comme saa ni ki su fekkee yaa ngi yaa ngi tàmm yaa ngi miin pour toog fii xem fii rek ah soo xamee ne yow da nga war a jóg dem fële na le jógal nga dem su fekkee ne yow buggoo koo def sa yaa ngi tayal wala nga xam ne su ma ko defee nit ñi nañ ma ree wala yaa ngi ruus jógal su yàggee danga ko miin te su yàggee doo si rusaat parce que nit ñi loo def dinañ wax te ñun jeeg yi nag dañ miinuñ jeeg jóg di wa jéem wàññi yaram wala jóg di jéem a dox wala jóg di jéem a eh, euh, lifin ñu ñu si bëri ñun jeegi Gambia Sénégal ñu ñu si bëri miinuñ loolu dañ foog ne loolu xëy na pour xale yi la wala pour tubaab yi la déedéet loolu pour ñëpp la dafa baax si yaram te na bi léegi fu mu toll man su ma dee daw dama dafa am meer yu ma dee romb yoo ne juróom-ñetti fukki at wala juróom-ñeent fukki at xam nañ ko wala juróom-ñaar fukki at ñu daw romb ma dama dee rus sax parce que miin nañ ko te ñu ngi xam yaram bu nice bu healthy te meer yu màggat lañ meeri tubaab yi soo ñu ne ñee fa ne daw wala def de you know train ak exercise sa yaram bi pour tubaab la wala pour xale déedéet wala pour góor déedéet xam na ne nag duñ dee xam jot su fekkee yaa ngi xamee kër di dem liggéey di wàcc yi xamee jëkkër xamee ay xale yooyu noonu dafa extremely difficult xam naa ko waaye fu mu jaar rek ñu suy benn ñaar fukki minute la sax loolu rek doy na nga daw fukki minute nga dawaat fukki minute wàññeeku loolu rek doy na ba xëpp jaru ngay daw bu baax dawal ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk su yàggee rek da nga mën a daw lu suri fii ba da nga gis ne fukki minute yi danga ko mën a daw lu suri lu gaaw. fukki minute rek daw fukki minute ñëwaat loolu rek sax doy na boo koy def ñetti yoon ci semaine bi ñeenti yoon ci semaine bi loolu rek bu yàggee li nga ci mën a xam sa yaram bi dana wàññeeku ba pare da nga gën a sawar ba pare da nga gën a xam wérgu yaram nga xam tam yi lekk yi nga war a lekk xam tamit ndox yi da war a naan ndox bu bëri naan ay green tea stuff like that su yàggee sa yaram bi dafay leer rafet ku la gis na la wax ne looy diwoo fekk nekkoo di diwoo dara sa yaram wi ngay entraîné ak di lekk-lekk yu baax yi rek moo tax lay kay seet ba tey suñuy def loo tam dinañ mën a lekk suñ maalo yi waaye dañuy xam nuñ koy lekkee ok soo tey loolu laa bëggoon a wax ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bugg a daw bi yéen a ngi ak man yéen a ngi a nekk di dox wala ngeen bugg a nekk di daw na ngeen comment below ngeen waxal ma ma xam parce que am na seen yoo xam ne suma Facebook followers ngeen yéen a ma toppee from Facebook yéen a ma wax ne yéen a ngay join dama am pour xam yéen ñi nga xam ne yéen mooy seetaan YouTube fii tamit ngeen wax ku si bugg a join waaw parce que dañ dama bëgg li dem ba nekk lu rëy maa ngi am Facebook group boo xam ne maa ngi ko tuddee Amie Lose Weight dama bëgg li dem ba nekk lu rëy tamit loo xam ne di ngeen nekk si Facebook group bi dinaa el def fi vidéo waaye dinaa also di def vidéo si Facebook groupe bi about weight loss su ko defee ñun ñëpp ñu ànd def journey bi together parce que lii loo xam ne soo ko tàmbalee doo dee bàyyi xaat danga ko dee miin danga si dee nekk ay xat sa yaram bi daf ko dee miin dafay sawar xat bu nekk rek da ngay gën a sawar soo incha allah suñu yàlla dimbalee ñu mën a dund si àddina si lu yàgg you know yar suñ doom yi toog seetaan gune yi ñu màgg ñun ñëpp ñu fekkee ak wér gu yaram gune yi duñ màgg nekk di fayal fayal ay ay ay lopitaan ay garab lekk di yóbbu ay hôpital ndig suñ yaram waa ngi diis te feebar te mënta yëngatu nañ yàlla musal si loolu dañ bëgg gune suñ màggee ñun ñu mën a xam wér gu yaram gune yi xam wér yaram gune yi suñ xamee ay doom ñun ñu mën a sawar ba mën a foxee fox ak suñ sët yi daw ak suñ sët yi fox ak suñ sët yi xam wér gu gu neex ok loolu rek laa bëgg pour ñun ñëpp ñu xam ko loolu rek a tax ma bugg a def lii nii ba pare bugg leen see boole yéen ñëpp tamit defoon naa ko gannaaw ba suma yaram yi wàññeeku so it's a long ma dem xamaat yaram yu baag lu si bëri ñëwaat but <laughs> it's a long story tu mun a explain fii yëpp lu tax loolu noonu you know yaram yu ñëwaat duma mun a wax loolu yëpp si vidéo bii nii but eh, su ngeen bëggee ma def vidéo about that ngeen waxal ma so dinaa ko mun a def pour next time yéen ñi nga xam ne nii mun ngeen a moytu façon yooyu ngeen moytu ko bot yee soo léegi maa ngi koy defaat bot dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd si gannaaw léegi dama di def vidéo ma boole leen si rek ñun ñëpp ñu defandoor ko ok bëgguma man kenn su suma yaram bi wàññeekoo ba pare ngeen gis ma ngeen naan o sa yaram bi wàññeekoo noo ko defee su ko defee may explain fekk is too xas naa ba di ko def man kenn lu yàgg waaye su ma ko commencé ndoore ak yéen nii yéen ñi nga xam ne yéen a ngi xam yaram ni man di ngeen ko mun a commencé ndoor ak man rek ñu ànd rek continuer xam nga li ma wax ni ñun ñëpp su boobaa ñëpp ñu gis a ndoori sol noonu la so am na suma yenn cousin yoo xam ne ak suma suma waaw suma cousin lañ suma cousin yoo xam ne ñu ngi Gambia ak suma yeneen followers yi nga xam ne ñu ngi may toog Facebook seen yaram bi already mu ngi wàññeeku ko of man so keneen ki moom ñaari at si gannaaw la ko tàmbalee anyway but keneen ki tamit bu mu ko tàmbalee léegi war naa mat ñaari at suma cousin yi nekk Gambia man maa leen wax lu ma ah, lu ma dee lu ma dee def time bu noonu ak moo wax leen tamit ah, lekk ñu war a lekk waaye dama ko tàmbali woon time bu ma bàyyi ñaari at si gannaaw dama ko tàmbalee woon tuuti rek ma bàyyi time boobu maa doon di liggéey am na time maa doon di liggéey lu mat ñaar ñetti at si gannaaw loolu ñaari at la oo ñetti at léegi foog naa ñetti la yëpp jos balaa ma doon commencé vidéo yi so and then after bu ma bàyyi liggéey bi mënatuma continuer yëpp it was just too much may toog si kër gi di lekk rek and stuff like that and then because maa ngi waroon a toxu toxu bi stress si toxu boobu noonu ak stress si toxu xaat boobu noonu mun maa expliqué yëpp lu tax suma yaram bi ñëwaat bot yee soo léegi may commencé at di wàññi maa ngi gis already mu ngi wàññeeku bot yee dama ñëw rek pour wax lu tax ñu war a wàññi suñu yaram yi dafa important te lii si góor la ak jigéen yëpp waaw kon xam ne yaa ngi xam biir bu rëy xam yaram fu mu jaar nga try wàññi ko tuuti dafa baax sa wér gu yaram te yow da ngay gën a sawar sa yaram bi dafay leer nga gën a rafet gën a sawar su fekkee yaa ngi lekk comme nu ma lay wax si nii si vidéo bi moo war a def pour lekk nu ma leen di wax si noonu su ngeen lekk su ngeen lekkee noonu hmm? ngeen lekk façon ngi lekk yooyu ngeen di lekkee maalo noonu di naan ndox noonu comme nu ma leen koy waxee si seen yaram bi dina leer rafet ba ku leen gis ne leen looy diwoo plus seen yaram bi dina wàññeeku plus di ngeen sawar xam wér gu yaram incha allah ba nga xam ne su ngeen waree dund si àdduna si ba màggat incha allah da ngeen di nekk màggat bu sawar bu rafet bu dëgër bu actif du ngeen nekk màggat boo xam ne dafay dem hôpital bi suba mu dem hôpital bële ak a xaaf ay feebar yi di am ay sukkur ak ay diabetes ak yu kenn xamu nañu si yàlla musal so loolu rek laa bëgg na wax tey soo maa ngi leen di wax jërëjëf so dinaa am yeneen vidéo yu ñëw hopefully soon different content dinaa am different topic yu may wax and then am na beneen vidéo moo war a def boo xam ne dama si def ay musóor maa ngi leen dig vidéo musóor bi defaanguma ko so dinaa ko def si english and then su fekkee ne bëgg ngeen ma def ko si olof ngeen waxal na bot english bi su ngeen déggu lu may wax tam di ngeen gis musóor yi ma koy defee so hopefully di ngeen ok si boobu noonu dinaa ko def this week hopefully so ngeen am good evening koo xam ne ne yaa ngi am yaram te sa yaram bi mënoo koo wàññi xëy na because da nga am feebar or something or amoo jot jarul ngay mer jarul ngay feel sad na nga comfortable sa yaram bi nga bugg sa yaram bi nga xaar ba time boo xamee jot su dee da nga jot nga jéem a xam jot waaye to be jot pour wàññi yaram du ma sa xam dëgg jot pour wàññi yaram du ma sa man sax tey dama xëy bu bugg a dem tuuti kolon ma fomm ndig su ma yaram yëpp a forox di métti ndi bu ma ko commencé semaine bële daw naa juróomi yoon ci semaine bi ak buum gi may jël di tëb suma ma yaram yi minu ko su ma tànk yëpp ay métti ba may waaj a dee tey bu ma xëyee tuuti konoon du ma dem ma ne man de dem naa samedi démb dimanche xaaral ma noppalu tey suba maa ngi war a létt su ma demee tey damay sonn waaye afta ma ne ak ah, xaaral ma jàpp si yaay rek dem ma ne asamaan si de mu ngi bugg a taw man di maa war a noppaliku waaye noonu laa jàppee si yaay génn dem. waaye gisoo bu ma génnee dem rek far asamaan si tawut ba léegi nii tawut mu ngi nekk di xiin di bàyyi ra nga ñun fuñ dëkk nii moom Scotland taw rek soo ma jàpp si yàlla rek dem bu ma demee nag suma tànk yi di métti bu ma commencé daw tuuti ma dee suma tànk di métti métti boo xam ne ma jàpp si yàlla rek continuer gëmm rek continuer di di jokor jokor daw ndànk daw ndànk mu jéggi na bu mu yàggee nag métit bu yëgatuma ko soo noonu laa continuer di daw di daw di daw di daw you ba ma daw dama njëkk a daw ñaar fukki minit ma bàyyi ma dox tuuti ma dawaat dawaat dawaat dawaat you know juróomi minute you ma bàyyi and then ma def skipping buum bi you know and then after that si la uh, suma xarit bi ñëw ñu ànd dem dox maak suma xarit bi ñu dox lu sori and then you know loolu yëpp so lu ma def yëpp yëpp yëpp mut na four nearly five miles xëpp na four miles lu you lu ma dox lu ma dox ak ndaw tey yëpp so maa ngi am vidéo dinaa ko post sax you know vidéo noonu dinaa ko post after uh, you know maa ngi fa wax am na time maa ngi fa doon wax pour motiver nit ñi after bu ma dawee uh, force 20 minutes yi but english english wax laa doon wax yee so because dama feel ne def naa all wan one yi already but dinaa def another one soon but right now dama ko dee bëgg di mix yeah in case ñi nga xam ne dégguñ olof you know but jaar rek ñu wàññi si yaram yi pour ñun te buñ si rus buñ si rus su xeboo nit ñi wax xeboo nit ñi reeñu buñ si rus pour suñ wér-gu-yaram la pour suñ bopp la bugguñoo mag ba pare mag ak ay feebar suñ doom yi di sonn ndeysaan ñu jéem a faj dañ bëgg a mag xam wér-gu-yaram mën a dox lu sori mën a daw mën a waaxu mën a wér mën a jos def luñ bugg a def daal mën a yëngatu si néegi mën a def lu ñu neex so moo tax fu mu jaar rek ñu def koo xam ne xam nga wér-gu-yaram gi mun nga koo def jógal nga dem def ko su fekkee ne nag danga xamee ay doom wala ngay liggéey xamoo jot and stuff daal xutal jot jot xamut kenn xamu ko nga ko liggéey defu dara sax xamut jot su ko neexee mu toog di seetaan télé seetaan sax liggéey la di te jóg dawe kenn mun a xam jotam dafa métti parce que soo ko tàmbalee xees ba tey man bi mooy ñaareeli semaine bi like I said waaye tànk yaa ngi forox di métti ba so fu jaaree nga forcé nga wutal sa bopp jot bi su ñaar fukki minute la sax like I nga daw fukki minute nga delluwaat daw fukki minute loolu rek doy na so loolu rek laa leen bëgg a wax tey nañ leen try ñu wàññi suñu yaram yi pour suñ bopp jarul ñu koy wàññi ba sew sew sew sew nit ko bindoo sew doo man a sew sew te jeeg leen jarul ñuy sew sew sew moo tax ma play woy jeeg boobu noonu sax indi bëgg na jeeg leen jarul ñuy sew sew sew man ba bëgguma sew sew parce que suma sewee sew du ma jàpp su ma yaram bi bindoo noonu te miinu ko sax ba pare coono bi may war a dem góoturu pour ma sew du ma lekk du ma def dara di non. bugguma sew sew waaye dama bugg rek ma xam yaram bi xem ba pare dëgër actif mhm. so noonu la so dama bugg a wàññi tuuti rek nu ma am nii is fine waaye tuuti rek ba pare def li tuuti bi def push su ma yaram bi gën a tóon you know gën a dëgër gën a rafet that's it so koo xam ne daal yaa ngi bëgg a join lii nga def ko bul xalaat nit ñi su ma defee lii nit ñi dañuy wax nit ñi nii dañ may ree walla dëdëdë no nit ñi amul loo looy def ba duñ ree amul looy def ba duñ wax koo xam ne dafa bugg a ree wala dafa bugg a wax loo def mu wax soo toogee mu ne dafa tayal soo jógee mu ne xamul boppam so ñun ñi nga xam ne dam am jëkkër ba dafay wax ne man borom jigéen bu am yaram laa bëgg soo jaru ngay wàññi sa yaram bi wax ne ko waaw wàññiwu ma suma yaram bi pour ma sew waaye damay tuuti rek pour ma gën a suma yaram bi miin coono pour ma gën a active ma gën a sawar may jóg di dox lu sori also may jóg di di dawantu tuuti suma yaram bi dafay miin sawar pour ma gën a sawar pour ma soo mën a dund si àdduna bi bu ma xam feebar suñu yàlla dimbalee ba pare nga lekk ay lekk yu healthy nga sa yaram bi gën a leer rafet ba pare nga am yaram bu rafet bu baax wax ko ne looloo tax nga di ko def waaye du ne da nga bugg a sew sew sew parce que am na góor dañ ne la jigéen bu sew sa yaram bi ne bugg naa ko fekk yow sa bopp kontaanuloo sa yaram bi ngay toog noonu just bi ko sa góor bi te kontaanuloo loolu baaxut ba pare also mun na laa indi feebar yàlla traité ko góor bi su boobaa moom si dafay sonn loolu baaxut te nit ki su fekkee ne yow sa yaram bi góori mu si kontaan waaye yow kontaanu si loolu xamul njëriñ parce que yow doo mun a kontaan doo mun a bégal góor yi boo kontaanut so dangay def lu la kontaanal yow waaw lay kay seet jarul ñuy nekk di sewal suñ bopp mel ni comme ni ku sew nu mu bindoo nit ñëpp waruñoo sew sax yàlla bindeewul ñu noonu ñëpp suñu àndee sew àddina si du rafet waaw waaye ñëpp suñu àndee tam itam àddina si du rafet moo tax yàlla def nit ñi wuute dafa xam ñoo xam ne ñoo xam ne dañ bi rek waaye nag xam na nooy def nga wàññi yenn lekk yi ak ngay def yenn activité say soo bindoxee rëy doo nekk di rëy trop you know ba nga xam ne mun nga see jëlee feebar so loolu rek la so maa ngee ñoo dem ngeen am good evening you know and hopefully su fekkee ne understand ngeen lu may explain si vidéo bi te bugg ngeen a join ngeen comment below ngeen wax ma ok ma xam soo ngeen am good day jërëjëf si li ngeen di seetaan vidéo yi and yeah Bye. Good evening. Bye. <laughs> Thank you for watching.